Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak md énergie ñoo leen di may seen de presse jàngeen jëf géopolitique bi xumb lool ci la yéene kay xëyee tey réew mi quotidien adduwati ci législative yi ñu dëgmal weerub novembre di xam ne ni bëri na ay kàngam yi nga xamante ne ñoo jiite parti yi waaye seen doxalin jamono ji dafa mel ni méngootul ak xalaatu ñu bëri ñi ànd ak ñoom moo tax yéene kaay bi gis ni ténor yi jamono ji ñu ngay jaamaarloo dëgg ak ay frondeur si seeni parti loole lañu nemmeeku ci ci PDS ndax Doudou Wade dafa jàpp ni seen lëkkaloo ak APR jamono ji dafa mel ni ay mbirub caaxaan képp la liy wokku PDS ak APR googe dafa mel ni moo xuri taxawu senegal ndax yéene kaay groupe Rewmi Network bi mu ngi xamal ni bëri na ay jege ñaale ya woon yu xalifa Babacar Sall yi nga xamante ne ŋàññi nañu taxawaayam rawatina ñi mu taamu bees ngir ñu ànd ci législative yi ñu dëgmal moom xalifa Sall am na ay àndandoo yu bees bu ñu sukkandekoo ci l'info yéene kaay ab coalition samp ñu yi ak waa PUR Déthié Fall Thierno Bocoum Bougane Gueye Dany Anta Babacar Ngom ba ci sax Pape Djibril Fall muy coalition bu yaatu bi bëgg imposer cohabitation APR tamit bëgg gën a yaatal yëf yi Le Quotidien yéeni gis ni kon jamono ji tembe dafa mel ni parti Macky Sall bi gisagul fas bi mu mën a war ndax gannaaw PDS ak réew mi dafa mel ni yëf yi dayu leen ndax jamono ji tembe ñoo ngay yootuwaat ki nga xamante ne moom mooy Aly Ngouille Ndiaye te bàyyeew guñu sax Khalifa Babacar Sall Abbas Fall bis bi le jour gis ni lii yëpp ay xeetub combine la ngir faagagal pastef bi nga xamante ne moo nekk ci nguur gi yile coalition yu ñu samp ñu fas yéene jàmmarloo nguur gi l'observateur njort na ni ci ay jafe-jafe dëgg la ñu jëm lu koy waral mooy bu yeggee ngir taamu anakan mooy nekk tête de liste ci la coow li di juddu boo moyul kenn du bàyyi sa morom daal di lay jiitu xëccoo yi tamit ci biir parti ba ci coalition yi ku ci nekk di sàmm say intérêt bopp ngir seeni intérêt bopp moo tax parti ak kuréel yi ci opposition di def seenu say ca jamono ji nga xamante ne Pastef dafa mel ni ku bëgg a beru ñu nemmeeku tamit ay libéro daal di daje seen biir moo tax élection législative yi moom laas dafa gis ni kenn xamul fu muy mujj le témoin moom mel ni ku xamul ana lan la PDS bëgg ndax ay weer ci ginnaaw kii di président Bassirou Diomaye Faye la daal di jàppale tey jii mu wëlbatikuwaat daal di ànd ak ki nga xamante ne moo ko jëlee ci nguur gi mu mel ni élection bu nekk PDS ak ñu muy àndal yëlee élection législative moom Walf Quotidien tey dafa dikkaat ci taxawaay bi nga xamante ne moom la presse bi ci boppam war a am ndax tëddum njaaxaanaay bi ñuy xaar ci moom dina ko def yéene kaay groupe Walfadjri bi dénk kàddu du Ibra kan mi nga xamante ne moo jiite patron de presse yi mu gis ni jamono ji entreprise yi ci seen wàllu bopp dañoo nekk ci ay jafe-jafe moo tax dañuy wëlbatiku di xaatim ay convention ak ay candidat ngir ñu mën cee génn Ibrahima baaxum di tàggat ay taskatu xibaar gis ni ger gi moom ngir mu génn ci bërëbu tasukaay xibaar yi dina jafe lool ndax entreprise yi ci seen wàllu bopp ñoo nekk ci ay jafe ci nekk ci ay jafe Lat Diop les échos yéenekaay dikkaat ci gardaaw yi bi nga xamante ne dañu ko daal di yokk di xam ne ni moom jëwriñ ja woon démb daa nay janoo ak atekat yi lu toll ci ñetti ci ay waxtu waaye léegi dafa mel ni yëfi yamatul rek ci digganteem ak Wanisbet dafa mel ni wàllub enrichissement illicite la ñu koy toppee laaj nañ ko lu jëm ci coffre-fort bi mu yor ci ay compte bancaire yu bëri ba ci sax ay wotoom ñu jàpp ni lim bi takku na lim bu takku ñeel ñi nga xamante ne kon ñoo ñàkk seen bakkan ci gaal gi ñu gis ci waaxub Ndakaaru Vox Populi nee ñu lu toll ci fanweeri niw la ñu daal di gis jamono ji te opération yi nga xamante ne moo ñel identification bi jafe na lool ndax anam yi nga xamante ne moom la niw yooyee nekkee ñu njort ni gaal googe ci diwaanu Mbuur la jógee ci weeru août bi wees diggante ñaari ay bis yi wees rek réew mi quotidien di ñu xamal ni kon wàllub mbëkk mi faat na lu ëpp juróom-ñaar fukki doomu aadama ci Sénégal mu nekk lu tiis li nga xamante ne enquête daf ci gis ni ku ci nekk nag sa responsabilité nga ca muy état way juri rawatina ñi nga xamante ne ñoom ñooy laaj kopp koppar di yóbbu ndaw yooyu yéenekaay bi duñu xamal ni donte jamono ji tembe police ak gendarmerie taxaw nañ ci waaye teewul ñit ñaa ngi gën a wutali mbëkk ma lu koy firndeel mooy ca Îles Canaries lim bu takku moo fay wàcc jamono ji jamono yi wàccaayu année scolaire bi nga xamante ne moom la ñu dëgmal Sud Quotidien ci la xëyee tey di wax ni kon lekkool bu Sénégal lu koy xaar niki ren ji bëri na lool bokk na ci ñàkk jàngalekat yu doy yi ñu war a saafara ay classe yu doyut naka noone ay table banc ba xamante ne war nañ ko ko fi jëlee naka noone grève yi nga xamante ne moom la ñuy nemmeeku syndicat jàngalekat yi di ko def waaye mu mel ni suñu naataango yi am nañ ci yaakaar gannaaw ay ponk yi nga xamante ne déggoo nañ ci diggante syndicaliste yi ak nguur gu yees gi njiitu réew mu yees mu Sénégal muy fës lool ci xët bu njëkk la Soleil yéene kaay mi dikkaat ci ndaje bi nga xamante ne moom Bassirou Diomaye Faye mu ngi ko doon teewee ni ki démb ca New York fësal ci ay kàdduwam jëmale ko ci wàllub jàmm ak kaaraange gi nga xamante ne sàkku na ci réew yu mag yi ak kuréel yi